asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan fii ci Star TV ñu am mbekke kontaan te dalalaat leen rek ci xibaaru marax yi ngeen ànd si ak seydu Camara laata ñoo jublu ci faram-fàcce dañuy njëkk a dem seeti xibaar yi gën nit ki démb nag ci yoonu Banjul bi foofa ca Denton Bridge am na benn ambulance bu eboon nit ku feebar di ko yóbbu ci lopitaan bi ambulance boobu nag dafa daal di eh, daanu eh, ki feebaroon nag fa la jaare sax ñàkk bakkanam. Top Africa Global nag jiite ko di Moustapha Ndiaye ñoom ñoo yëkkati koppar yu takku daal di ko àggee KMC ak BCC pour jàppale leen ci xeex jàngoro coronavirus bi. buñ sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci Ministry of Health mu di bunt bu yore lu aju ci wàllu paj meeg wér gu yaram gi ñu ngi wane nag lu toll ci ñeenti nit paj nañ leen ba ñu wér ci jàngoro coronavirus bi. ci xibaaru bitim réew yi la ca réewu Togo seen opposition leader bi nag daal nañ ko arrest li ko waral mooy dafa wax ne moom moo nekk président bu réewu Togo foofale ca réewu Madagascar nag seen président bi daal na ràññee ab garab bi nga xamante ne wax na ne dina fa jàngoro coronavirus bi te sax tàmbal nañ di ko jox ñenn ci askan wi. african yi nga xamante ne ñoo nekk foofale ci réewu China ñu ngi joytu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ leen nekk di teg ci biir réewu China ci jamono coronavirus bi mbokk yi xibaar yi geneen xibaar ngeen teewlu ñu jublu ci faram mbokk yi su ko defee rek ngeen teew nu ñu jublu ci faram fàcce yi euh, Red Cross nag seen ambulance bi nga xamante ne rek Banjul City Council ñoom ñoo leen ko àggee ni ki weer wiñ weesu euh, pour dimbale leen ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def fii ci biir réew mi nag jàpp nañ ne ambulance boobu ni ki démb moo am accident foofa ca Denton Bridge ba waral na nag accident euh, ambulance bi dafa daanu ba julaatu dafa am benn nag dafa am kenn ki nga xamante ne ambulance bi moom la eboon Euh, pour yóbbu ko ci l'hôpital bu nekk ci capital bi di Banjul pour ñu fajee ko foofu gannaaw bi nga xamante ne rek moom nit ka ah, dafa am heart attack waaye nag ci accident boobu jàpp nañ ne sax moom nit koo kooku feebaroon euh, te ambulance bi di ko doon yóbbu sax dafa jaar foofa nag ñàkk bakkanam euh, ñu teewlu daado caam ci xibaar boobu ambulance bi lee ñoom ñeent ñoo nekkoon ci li nga xamante nag mooy ci yoon bi pour rek dawal ki nga xamante nag moo feebaroon ñoo jóge ko komba nag ñu koy yóbbu foofa eh, ca Edward Francis Small Teaching Hospital moom nag dafa mujjee ñàkk li nga xamante nag mooy eh, bakkanam bi gannaaw bu accident bi amee. ñeenti ñi nga xamante nag ñoo nekkoon si ambulance bi bokk ci di driver bi moom Ibrahima Jammeh ak Ablaye baam mi nga xamante nag ñoom den dee liggéey ci Red Cross ambulance bi leen nekkoon euh, pour rek jàppale ki nga xamante nag mooy euh, ki feebar euh, ko doon jëlee ci fi nga xamante nag mooy ci këram di ko yóbbu foofu noonu ci fi nga xamante nag mooy ci lopitaan bi su ko defee ñi daal di ko jàppale ci li nga xamante nag mooy jafe-jafe bu mu doon am ci wér-gu-yaramam moom Ibrahima Jammeh nag bokk ci ñu ko doon jàppale nag dafa far jëlee li nga xamante nag mooy gaañu gaañu uh, ci tànkam bi gannaaw bu accident bi amee. Star TV Star FM nag uh, dem neen foofa ca loppitaan bi nag uh, ba ñii daal di xam ne ki nga xamante nag mooy Ibrahima Mbaye mu doonoon ku feebar ki ñii daal di ko tàggee di wax ni dafa génn àdduna gannaaw bi nga xamante nag accident bi am na. moom ablaay Ba nag bu mu doon waxtaan ak Star TV Star FM daal dina wax ne daal lu waral accident bi mooy am na benn moto boo xam ne dafa bañoon a may lii di ambulance bi mu daal di jàll pour daal am yoonam bi nga xamante ne soxla na ko pour gaaw egg ci fi nga xamante ne mooy ci lopitaan bi pour ñi daal di a mun a jàppale ki nga xamante ne mooy Ibrahima mbay si la nag accident bi am foofa ca Denton Bridge. moom Ablaye nag wax ne ne Ibrahima mbay sax mu ngi woon ci ay jafe-jafe yu métti balaa sax accident bi di am. Ibrahima May nag ab ticca la woon di yëngatu ci wàllum jàng meeg jàngale mi fii ci biir réew mi itam nag doon jëkkër ci kii di former deputy speaker ca National Assembly bi ki nga xamante nag mooy honorable Aminata mbay moom nag yëngatu na ci lépp loo xam ne rek méngoog nag doomu aadama ki seeni tëddin rawatina nag foofa ca Banjul àndate nag liggéey na sax foofu ci fi nga xamante nag mooy Banjul City Council Dado Cham Star TV mu ngoog jaajëfal daado ci am ci xibaar boobu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyikoo ci ministry of health mu di bunt bu yore lu aju ci wàllu paj meeg wér gu yaram gi ñu ngi wane nag am na ñeenti nit yi nga xamante ne amoon nañ jàngoro coronavirus bi ba ñu yóbbu leen ci bérébu fajookaay yi waaye nag jamono ji ñu ngi dëggal ne ñeent ñooñu nag daal nañ wér ci jàngoro coronavirus yooyu acting director of health services mu di Moustapha Bitey moom nag moo gaarale kàddu yooyu ci kanamu taskatu xibaar yi dañuy teewlu daado ci am ci xibaar boobu moom jëwriñ yuñ dénk wàllum paj mi fii ci biir réew mi daal dinañu rek am ab waxtaan buñ si xëy taskatu xibaar yi comme nuñ koy defee bés bu nekk ci wàllum taxawaay yekk tamit nag ci li di jàngoroom coronavirus bi la fii ci biir réew mi moom nga xamante nag mooy acting director foofa ca lii di kuréel gun ndënk wàllum paj mi di Moustapha Bitèye daal di na rek wax ne ci jamono juntoon yi ñeenti doomu aadama yoo xam ne amoon neen lii di jàngoro bi la ci jamono juntoon yi faj neen leen benn wër te pare neen nag pour delloo leen si seeni njaboot. lu toll ci juróom benn doomu aadama nag daal di ñu rek fexe tes leen te buñ leen tesee nag gis ne ni amul li nga xamante nag mooy jàngoro bile. waaye tam nag wax neen ne daal juróomi doomu aadama jóge ko neen foofa ca jaare jaaree yooni jubóora ba eh, ci fi nga xamante nag mooy frontière bi eh, te itam pare neen pour daal di leen yóbbu ci fi nga xamante nag mooy quarantine maanaam daal di leen rek beral eh, su ko defee ñi daal di seen wér gu yaram xam ndax am neen jàngoro beem déet ci fukki fan ak ñeent. wax na itamit nag am na kenn koo xam ne yóbbu woon neen ko quarantaine maanaam ñi beroon ko te ci jamono juntoon ni buñ ko tesee nag gis neen ne amut li nga xamante nag mooy jàngoro bi le ci jamono juntoon ni wax neen ne daal lu toll ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñaar ñoo nekk ci quarantaine maanaam ñi ngi leen daal di ber su ko defee ñu wisite li nga xamante nag mooy seen wér gu yaram depuis bu feebar bi duggee fii ci biir réew mi nag fukki doomu ma ñoo ko am waaye benn ci ñoom dafa génn àdduna ñett yi nag ci jamono juñ toll nii ba tey ñu ngi ci li nga xamante nag mooy ci lopitaan bi pour faju Daado Thiam Star TV. jaajëfal Daado Thiam ci xibaar boobu mbokk yi ci jamono ji ñu nekk di xeex jàngoro coronavirus bi di waral Covid 19 waral na nag TAF Global Africa ñu jiiti ko nag di Moustapha Ndiaye. daal di nañ yëkkati koppar yu takku nag daal di ko àggee Banjul City Council ak ñi di KMC yëkkati nañ nag ceeb boo xamante ne buñ ko xaymee dina toll ci two hundred and fifty thousand dalasi mu di ñaar téeméer ak juróom fukki juney dalasi ñu daal di ko jox BCC mu di Banjul City Council téeméeri juney dalasi nag ñu daal di ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Kanifing municipality bi mu di KMC pour dimbale leen ci xeex jàngoro coronavirus bii di waral Covid 19 dañuy teewlu Amar Tunkara ci xibaar bi. TAF Global Africa si ron jiital yi Moustapha Ndiaye yëkkati nañ lu toll si ñaari téeméer ak juróom fukki junne dalasi daal di koy jox Banjul City Council loolu nag dañ koy def si xeex bi nga xam ne ñu ngi ko def jàngoro corona bi te loolu ndaje moomu ñu ko amale woon foofu la ca Banjul si dëkkuwaaye Banjul City Council bi Gambia depuis weeru maaj bañ déggalee seen kees bu njëkk bi euh, borom baax yi ñu bëri ñàkk ci réew mi ñu ngi jóg nag def ñoom it seen ndibal si anam buñ ko mënee pour ñu mën a daan jàngoro corona bi TAF Africa Global nag ñoom it parce que nag ay yoon yoon nag àggee nañ ndimbal askanu réew mi Fane Ndiaye mi nga xam ne moom moo sos Staff Africa Global moom nag wane na li tax nañu daal di yëkkati koppar yooyu daal di koy jox Banjul City Council ak yenn ci ay gox yu nekk foofu la sa Banjul ndax moom ci boppam nag mu ne moom bokk na si gox yooya dama fi taxaw ngir doomi Banjul soo nekkee doomi Banjul nag am loo xam ne dafa yëngatu tey kuy dugg si Banjul caabi ji benn nit moo ko amee caabi ji ki ko yore mooy mooy Rohey Malick Lowe di mayor rek si Banjul bon lu ma def di ko dugal si moom laa ko war a jaarale moo tax tey si gàttal mu am suñ ndimbal lu tuuti luñ isi doon doom doomi Banjul teg ko si loxoom moom mu seet naka la ko seddalee waa Banjul. Rohey Malick Lowe moom nag gannaaw bu mu jotee koppar yi wane na nag mbégte ak kontaante rafetlu na nag taf Africa Global seen taxawaay bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci réew mi rawatina it foofu la ca Banjul. kon Banjul ku nekk daf ci war a dugal loxoom te loolu la mustafaa Ndiaye mii def tey defu ko ne bi Banjul dëggal la. waaye daf ko def ne citizen la tamit si biir Gambie bi fii kon maa ngi ooj ñeneen ñi di leen ñaan di leen ñaax bi initiative bi doore bente ñu ngee wax waaye nag mënuñoo dem si kër ku nekk di la neexal parce que ku nekk soo waxee sa diggante yàlla am na capital bi lu mu la defal kon capital bi mu ngee jooy génn leen delloo ko njukkal Omar Tunkara Star TV News mu ngoog mbokk yi su ko defee dañuy jàll dem seeti xibaar yi bitim réew yi fi ñu koy njëkkee nag mooy ci biir réewu Madagascar Madagascar nag jamono ji seen président bi am na benn garab bi nga xamante rek wax na ne garab boobu euh, déggal na ne dafay faj jàngoro coronavirus waaye tamit képp ku ko naan daf lay muccal euh, ci jàngoro coronavirus ba doo am jàngoro boobu garab bi nag nee nañ garab bi nit ku ñuul la ñu gisee ko nag ci biir réewu Madagascar moom président bi nag di euh, André euh, Rajoelina euh, wax na ne nag am na ñaari nit yi nga xamante ne jot nañoo naan garab boobu gannaaw bu ñu amee jàngoro coronavirus bi te nag garab bi faj na leen ba ñu wér ba looloo waral nag wax na ne képp ki nga xamante ne yaa ngi ci biir réewu Madagascar nguur gi ebal nañ la pour nga ñëw jël ci garab googu su ko defee nga daal di ko naan nee nañ nag niki tey. am na nit ñu bari ñu génn nag dem jëli garab garab boobu ah, pour daal di ko naan bokk na kenn ci ki nga xamante ne rek ci ñi nga xamante ne ñoom demoon jëli garab yi nag ah, moom nee na garab bi nag ah, président bi moom moo ko digle te nag ñoom gëm nañ président bi li mu wax kon nag il faut ñu jël garab bi ñu daal di ko naan. mu am keneen ki nga xamante ne wax na ne moom daal mbir mi jaaxal na ko xamul lan moo waral ñuy naan garab boobu gannaaw bi nga xamante ne nit ñu feebar ñi sax nekkuñ di naan garab boobu te lan moo tax sax ñuy forcer nongo daara yi pour ñu naan garab boobu. foofale ci biir réewu Madagascar nag ah, jamono ji président bi wax na ne garab bi eh, dëggal nañ ko ndaxte kat test yi ñu waroon a def si garab bi yëpp def nañ ko ah, ba nag ah, jamono ji wax nañ ne askan yi mun nañ koy jëfandikoo mu ne nag eh, am na benn naataangoom bi nga xamante ne président la fii ci tundu africa xool na ko nag daal di ko jaajëfal rafetlu garab boobu ci biir réewam président boobu nag moom moo jiite réewu eh, Democratic Republic of Congo mu di Mr Tshisekedi ne ne nag eh, naataangoom boobu kàddu yi ko àggee ci biir réewam mu di réewu Madagascar moom nag rafetlu na ko bu baax a baax WHO nag nee nañ. amul benn garab bi nga xamante ne gisagum nañ ko ci àdduna wëngal képp buy faj jàngoro coronavirus bi waaye Madagascar seen président mi nag nee na garab boobu dina faj jàngoro coronavirus te képp ko naan tamit dina la aar muccal la ci jàngoro boobu. foofale ca biir réewu China african yi fa nekkee nag jamono ji am na métit bu am na métit yi nga xamante ne ñu ngi leen koy àggee eh, ci dëkk bi leen mu di eh, Guangzhou foofa ca Guangzhou nag africain yi nee nañ. Euh, dañu leen dee faral di tuutal ndaxte kat ñu bari ci ñoom sax jamono ji génnee lañ leen euh, ci kër yi nga xamante ne foofu lañ nekkoon di luwaas ndaxte kat sa boroom kër daf lay woo euh, bu la woowee nag ne la duma la mun a yokkalaat luwaas bi li ko waral mooy nguur gi seen i bopp ñoo ñu nekk di sonal pour ñu daal di génne africain yu nekk ci suñu biir kër yi ñu ne ñoom loolu nag métti na leen bu baax a baax même buñ génnee ci mbedd yi sax buñ tesee ak Chinese yi dañ leen dee faral di daw ñu ne ñoom loolu nag daf leen métti te rafetlu ko benn yoon ci biir réewu China benn tey wax nañ ne am na kayit yi nga xamante ne rek dañ leen ko dee faral di jox ci gox yi nga xamante ne foofu lañ dëkkee di déggal ne ñoom amuñ jàngoro bi waaye ne nañ kayit yooyu sax euh, munta wàññi mbir mi ndaxte laata ñoo gis sa kayit bi sax dañ la dee dawagum foofu la ci réewu China ci dëkk boobu di Guangzhou ne nañ loolu nag ñoom africains yi métti na leen bu baax a baax ba waral na nag nee nañ ñoom daal bëgg nañ mbir mi mu takk bu baax a baax ci biir li di réewu China China euh, nag euh, gannaaw bi nga xamante ne àdduna wërngal képp ñu ngi leen di ŋàññi ci mbir moomu African Union bi sax yéeg bind nañ bataaxal àggee ko nguuru China bi di leen xamal ne war nañoo jël ab matuwaay ci ñaawteef bi ñuy teg africain yi foofule ca Guangzhou euh, nee nañ ci jamono yooyu nag China tontu nañ di wane nag ñoom mbir mi ñu ngi koy dàqalu bu baax a baax ci seen i biir réew te tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk africain yu nekk ci biir réewu China seen i bakkan daal fulal nañ ko bu baax a baax waaye tamit seen i dund ak seeni i nekkin ci biir réewu China itteel na leen ñoom nguuru China bi ba waral na dinañ ci jël ab matuwaay. foofa ci réewu Togo euh, Togo nag euh, jamono ji arrest nañ ki nga xamante ne moo nekk opposition leader bi lee di Mr Kodjo Mr Kodjo nag nee nañ moom moo taxawoon ci réewu Togo di wane ne moo nekk président bu réewu Togo gannaaw bi nga xamante ne def nañ présidentielle élection yi dañu gis ne nag yëkkati nañ ndam jox ko ki nga xamante ne moom moo nekk Mr Ngasimbe. Gnassingbé nag moom moo continuer jiite réewu Togo gannaaw bi nga xamante ne def nañ élection yooyu waaye opposition bi nag di Mr Kodjo dafa bañ lu génn ci élection yi di wane ne am na rëg-rëg bu xew ci euh, sànni carte yi ak compte carte yi ci yooyee jamono nag nee nañ euh, police dem nañ ci këram nak daal di ko arrest wane ne nag lim def euh, tegu ko fenn ndaxte kat loolu àndul ak sartal waaye ci biir réewu Togo ndaxte moom nag am na li nga xamante ne moom lañ tuppee euh, ci li nga xamante ne rek moom moo nekk public disturbance maanaam dafa bëgg a yëkkati fitna ci biir li di réewu Togo waaye tamit yàqal luwaay yi ci euh, kàddu yooyu nga xamante ne gaarale na ko di wane ne moom moo nekk président bu rewu Togo te nag président bi moom mooy Mr Nsimbe ndaxte kuréel wu yore lu jëm ci wàllu lu lu jëm ci wàllu sànni carte yi ak konte carte yi ñoom nag dëggal nañ ne euh, ki nga xamante ne moo nekk incumbent président bi di Mr Gnassingbé moo amoon ndam ci presidential election yooyu jamono ji nag moo opposition leader bi arrest nañ ko te wax nañ ne dinañ ko yóbbu euh, ci étu ateka yi pour ñu daal di ko tuumal ci weeru maaj nag nee nañ malaanu kiiraay bi nga xamante ne amoon na ko ci néegu député yi en tant que député euh, génne woon nañ ko nag euh, loolu moo waral ñu daal di ko arrest gannaaw bi nga xamante ne rek public prosecutor office bi nekk foofule ca Lomé sàkku nañ nu mel ci député yu nekk ca pencam réew mi mbokk yi mu jéem teeloo xibaar yi fii ci biir kër gi Star TV ñu am mbégte kontaante ci seetaan bu rafet bi di leen ñaax rek pour ngeen continuer di safoo Star TV jaajëfal mbay euh, ci caméra bi ak ci machine bi jërë ngeen jëf wasalaam